dama ne ko woon yaay l'abreuvoir des assoiffés. Uh-huh. mandum waay mar yi. waaw waaye Cheikh Sarr guy daar gaa ngi ni gone yi ci yow la ñuy jànge yéeg. Cheikh da nga mën. <laughs> da mën nag <laughs> man da may defal. des fois bu ñu nekkee si studio. Uh-huh. je préfère d'être un auditeur. ma wax la uh-huh. mën naa feneen. ndeysaan. mën naa feneen mëne ci yàlla mëne ci yonante bi. mëne ci àdduna def ko mbiri Serigne Touba dem leen bay nuroog ñoom sa du ngeen ñoom. bu leen ma jël direct mën Fatou mën naa feneen. <laughs> feneen fan. waxal na leer waxal na leer. wa nanu xamni ni wax de. cheikh dina la mës sama jital en direct. Eh, Fatou gennal ci yi nga ne. Eh, Fatou rek ko moom lah. la <laughs> xam nga ba legi bo depuis dem ba tay ak may tekk nañ xam li ni wax. mo gën de. <laughs> nan xam li ni wax dañuy dem de. Ah, dekk bi da la ngi ni nan xam li ni wax bikon nañ xam li ni wax dekk bi dafa tok les murs ont des oreilles. benen bi ci tege dafa men Tayib sosi sax dafa dugg si. Alaaji Tayib sosi Alaaji Tayib Socé. ah. asalaamaaleykum. maaleykum salaam Alaaji Alaaji Tayib. ah Alaaji Cheikh. maa ngi lay siyaar baax a ah, wax yàlla Cheikh bi dama kontaan. yàlla yàlla bëgg Tayib. dama kontaan ci yéen Fatou Waré. maa la gën a kontaan bi may ñëw ci oto bi léegi dama leen doon déglu. Mm. ndeysaan ndeysaan wax yàlla kontaan naa ci yéen. ñoo kontaan man tey Cheikh Sarr daf ma bett. Mm. Ah. bi mu déggee muy jàng. muy di tari bari na ci animateur yoo xam ne. Eh. alam tara kay fa sax mënuñu ko. looy wax ni oustaz. wax deug yàlla lolo dafa am. animateur bu mënul aram tara kay bari na fi. dedet kay xana oustaz. waaye bi ma dege cheikh ni tari. allahumma anta rabbi. la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika wa wa adika masadatu. auzu bika min sharri ma sanatu abu ulaka abu ulaka bi ni'matik alayya wa abu bizanbi zanbi faxfir li fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta. yàlla rek ay yàlla. loolu. waay yàlla rek a yàlla waay. lii de néew boo ko tifli mu jóg. réew mi loolu am solo la. réew mi métti mi. waaw bari na ay wàll yu fi doxantu. kenn xamul mhm. kenn xamul kanay kan baax na. Euh, kenn xamul kanay kan. yow mal tax na yéen a ngi wax ci Serigne Touba. yow mal di nga gis ku gàddu mbuusam. Mhm. di xaar yàlla ne la dugal fee. dëgg la daal ni hee. yow ki doon mbalax wala yow mi doon théâtre wala yow mi doon nangam dugal aljana. barka yonanti bi. yow mal xam loolu lu neex tey xam nga Sénégal. Mm-hmm. dañu mën a xeeb nit. dëgg la tey dañuy gis nit nekk animateur. Mm-hmm. wala mi ngi sé théâtre deug la ñu na ay ñi ay nitu sétané lañ mm-hmm. wallahi deug la tay tay sosé yalla suñu borom waxul lool bur tay tay nga ñu yalla ñepp la waxal tay tay fu mu toll sax sama yaram la laal lu mel ne mari dafa nak mari wuy mari dëggul rek mari lu yàq wax mari da nga mëna a mari tay tay sosé mo fi nekk ta ci magal lañ jup mari bayil li ngay safar mari way eh wala le nga prokaanu chaque man si meyoon mari dañuy safar ñu ram ne dem non mais mari eh seex seex ah. déggoo li neex de nee na la nekkal poroxaan lu sax mari wuy ma waa déglu ma poroxaan jotagul mari mari ah, ah, waaw d'accord mari léegi wuy ma léegi doon dimbali doon dimbali ñu wax ñu wax ak tey soose ngir yàlla mhm. waa tey problème bi mooy dama dégg gaay naan gaay naan euh, musique bi Mhm. dafa xaram te dama dégg nga ne yaa ngi doon déglu léegi. waaw musique bu ñu waxee ne dafa xaram. Mhm. su fekkee da nga ciy woy yu xaram. Mhm. boo demee. comme yan Arabie comme yan way ñoo xam ne dañuy woy. comme yan way. tey bu dee boo dégloo waaraatekat ji. dañu teg musique. mais kon ban genre way. musique boo xam ne dafa yeete. dafa yeete surtout nag bi gën a dagan mooy bi nga xam ne. dafay wax ci li jëm ci yàlla. ñun tey bu ñu waaraatee dañu teg musique. dëgg la musique mhm. la ñu teg mhm. boo demee ba Arabie Saoudi mhm. dañu woy woy arab di ci tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg la tayib dëgg li bon mooy di musique di ci wax yu bon comme comme suus yoo xam ne daal. <laughs> comme suus <laughs> ah ma gën a xam. mais suus garaaw na suus. <laughs> ah suus dama koy dégg waaye xaw ma lu muy teg. ma wan la kin kin taj tëggal ma yow. kin kin kin taj. kin kin taj. kin kin kin taj. kin kin taj. kin kin kin kaj. di di taj. rin tëj rin taj. tas bii mooy suus. bi mooy suus. Hmm. oustaz bi mooy suus. bi moom bi moom wax dëgg yàlla jàllul. ah bii dafa xaram. noo def ba gis bi ah ni ma gisee Fatou Waré ni ma koy feccee. lee <laughs> du lu daga li moom baaxul. lii moom wax dëgg yàlla baaxul. mais xam nga Cheikh Sarr daf may waaj a takk. Mhm. moo ma jox dàll yi ma sol premier cadeau. bul yëkkati tànk yi ci kanam tayib de. waaw du ma ko yëkkatiwaat ci ah, kanamu tayib ah, am ah. benn problème mais munoon nga ma bàyyi ma lonk ko nii rek. mu xam ne xale bu am équilibre laa. mais mais mais mais Fatou wan ko say dàll. xaama wan la sama Ah. ah man keñ ma wax dëgg yàlla li nga <laughs> lu baax. waa internet xool leen sama <laughs> daal. ba pare sama tànk set wecc. maa silwi kay. tànk nuro tànk bambara. mari day fiir. xol bee jeex. day fiir mari day fiir. yow mari Ndiago. yow moom amulee ngay wax. mari Ndiago bàyyil fiir mais ku am sa jabar danga koy fóotal loolu dara nekk ci. mais loolu déedéet mari du ragal dara nekk ci. mais mari loolu gàcce nekku ci dem fóotal sa jabar. ku ragal si jabar yi ngay fóotu gàcce bu nit ñëw nga dew laakatu bu si biir. waaye seex. seex seex. waaw buur takk di fóot de. maam Fatim Mbacke nee na. bu xaar yàlla. nee na moo invité Mari Ndiago ca màggal ga. demul lu tax. Ah. maa ne a def. Rome. xanaa xamul ne tey moo nekk Rome yii dem Rome. Ah, boo mënul woon nettali sax Cheikh Sarr dina la daggal billet Rome. barki yàlla ak waaye Marie loo xam nettali. laay Sarr. yéekee. Sarr njëkk a yàlla def baax. dëgg la gis nga jàll. baaxul yàlla dee wóoru baaxul mel ni kee lu mu li wax dégg nga xamu ko. kan lay gaar waaye bi Boubacar Diallo. Boub Sénégal waa toog ci fuur di jëw mburu man man du ci wax. kenn di ma yóbbu. Amina yi internet yeeg auditeurs yi yéenay sama seede de. voilà Cheikh dama ko fàtte woon. Uh-huh. Mbacke Touré mooy sponsor Cheikh Sarr bi. ki nekk Istanbul. Mbacke Touré Mbacke hmm. nee na dafa bëgg invité. Mari Ndiago. Mm. spécial invitation parce que Mari Ndiago Mbacke Touré da ree. ba ñi muy liggéeyandool dañ naan ko Mbacke Touré c'est quoi ton problème. Mbacke baax il y a de problème parce que c'est une radio. Mm. Uh-huh. il y a des professionnels. c'est vrai oh, comme Cheikh Saari moom day rendi yëpp. Mm-hmm. waaw man tamit noonu lay rendi nit nga rendi yow tam. nga rendi Mbacke Touré moom rey nga ko dee na. Mari Ndiago di Mbacke Touré da ree ba waa office am di ko lu xew. waaw dengere yëpp. Mhm. dama. dengere ko yëpp yu def musique. waaw waaw <laughs> waay déet waay Mary Ndiago dëgg la kay. yërmande tamit man tamit meree ko. ñuy def ah, comédie rey na leen. dëgg la moo fi animateur bu am fecc kat. waaw billaay wallaay ba pare. Eh, waay samba am ku la koy feccal ku fecc kat nag laa la wax. waxuma la ambiance kat. Serigne Bamba. Cheikh yow rek yaa am fecc kat. boo seqee tànk teg seqewaat tànk teg. ku jógoon day toog barka yonent bi Fatou Waré ñu tëggal ko tëggum démb mm. baara mbay gu wàcc mu ne bërit bërit na tekk gauche droite taxaw di xool ci digg bi ah ku taxawoon da ngay wàññi voilà Fatou yaa mën yaa bu doole yaa kenn rek Fatou léegi moom Amine waa léegi taxaw si mais déedéet amagul ay audio yaa ngi ni to waaw léegi du ngeen ma may di ngeen ma may ma boroxlu woo woo woo benn internet bu ñu capturé woon léegi ma boroxlu ci ah. woo ko leen ma rek ma boroxlu jël woo woo Aïda Gueye Aïda Gueye internet la. ayca ñu woo ko léegi wax li ñu ko war a may. Mm-hmm. waaw moom mi. mu may la loo bëgg. alors Aïda Gueye. dëgg la moom na nga def yaa ngi ci jàmm. waaye Aïda dama lay gis ci page bi ngay réagir rek ndeysaan page officielle bu i rajo. Cheikh dama laa yàgg topp. billaay yëg naa ko te gis naa ko. billahi wallahi dama laa yàgg topp. ay dëggee gis ah, ah. ci kenn moomul kenn. dëgg la. Cheikh am nga fulla. ndeysaan am nga fayram nekk nga référence. Oh. bëgg nga ñëpp di waxal ñëpp lu baax. nday ndeysaan te ne booy topp da ngay topp ki dëgg la ndeysaan ndeysaan ay de ay de yaa baax. ngay déglu nga mëne fu ne mën ci alxuraan. ndeysaan ndeysaan lu baax man lu baax laa la toppee. ndeysaan ba nga nekk waalo waala ni man. dëgg li mais Aida Ayda. Mm-hmm. lan lan lan la may sank ni ah man sama yaay dafa kontaan. Mm-hmm. faire à repasser. waa CAC tok nañ fi. fan nga fan nga dëkkee fi ci Dakar wala ci Sénégal. mangi ni Medina 37 angle 28. rue 37 angle. 28. ban jolof ci gan mo la jege. ay way ay waay lii xanaa Masalikul Jinaan. Masalikul jinan mo la jege. waaw waaw. dem fa léegi ñu jox la jolof ci kan ak ak lo bëgg ba mat 25000. waay ay <laughs> waay naa la ko jëlee li <laughs> yàlla ngeen fi yàgg yaa ngi dégg maa lay dégg waa waa Jolof Chicken dinañ la woo léegi nga dem Masalikul Jinaan bo boo demee ba ca Jolof Chicken ba danañ la jox lu tolloog juróomi junni loo bëgg ci Jolof Chicken ñu jox la ko vingt cinq mille yàlla ngeen fi yàgg jëlëf kenn ca ca kaw ca kanam. nekk sa ginnaaw paap. heure heure boo boo feexee suba. suba boo xëyee bu la neexee dix heures wala dix heures ba quatorze heures diggante bi. Uh-huh. ñëwal jël si sa sa sa sa feraaru passé. et eh, Cheikh. ngeen fi yàgg Cheikh neel ay dëggee. ay dëggee Mari Ndiago nee na ba xam mu jëlali ko jolof ci kër gi. mu ne ko jëli ko jëli bu jukkoon bi foofu. ay ay dëggee. waaw mais jëlee li xaalis Mari Ndiago ne ndax mën na la jëli sa jolof ci kër. neel ma dama gëj a lekk ginaar. ay ay dinañ la woo léegi dégg nga amiin yaa rabbal alamin mi ngi noonu Aïda Aïda Gueye Aïda Gueye moom may nañ ko benn bon jolof ci kan ba mu toll ci euh, vingt cinq mille Euh, Masalikul Jinaan la koy jëli jee ba pare Cheikh euh, surprise yi ngay def yàlla na la ko yàlla fay waaw yàlla na la ko yàlla fay taalibe Cheikh Ibrahima faal bi ki bëgg Cheikh Ibra ba mu xam nga kooku ku dul góor dëgg doo ko bëgg Cheikh Ibra il faut nga nekk góor dëgg xam fa mu toll ca yàlla nga soog koo bëgg ndax Serigne Touba du caaxaan mm-hmm. te moo ne Cheikh Ibra mm. bëgg leen ko ngir bëgg maa bëgg waaw mbaa ngeen bëgg ko ngir ma bëgg leen. seex rek mën lool waaw léegi bu bëri léegi toppali Serigne Touba de caaxaan rek léegi bu bëri si dee. ah bon waaw. Mm. Mm. Serigne bi de fay yoon bu baax bi moo ngi nii. waaw yéen de bu bëri de jargat. waaw ku déggalul yàlla nooy déggalee sëñ Touba. Ah, loolu moo am na ñoo xamante ne li leen yàlla sant sa defuñu ko. ay dina ma rey. <laughs> dégg la yaa mën tont nit moo dégg parce que maam Sero Fall waaye waaye sëñ Abdou kër nee na Fatou alma Ndiago fa mu ñëw dal si alma paaka ma ma am lu ma dagg jox la jaru ko jaru dagg dara je te veux complet waaw jox ma paaka ma dagg dara jox la bugguma dara dañ je te veux complet bu dara dañ bàyyi ko nii tuye égo waaw Cheikh Sarr waxtu wi jeex nañ jox leen xibaar yi waaw. ma eh. ne daal yore bu cuxulu ne yëpp. doo ci ñam. wala waxal ba jooy doo ci ñam. ngay jënd échange bi. waaw seen bosi moo génne bu lay jëndee benn échange kii fii la dëkk si dëkk bi fii. waaw waaw mu mu def xaalisam si dëkk nañu ko dimbali fii. dëgg la bu lay jënd benn échange. dëgg naa dëgg jënd leen lu lu ba pare Mari Ndiago. Mata Ndaw nee na soo commencé émission dëw li ñam tàkk munu ci dara day war a rosi bàyyi ko. bu bësee jëkkër yi fekk de mu dóor le nga bëgg dee xoole pas duudu gis nga boo gisee mu ñàkk a kerew boppa waaw xam ah, sa oto bi ni xool ko gaaree Cheikh buur géwél waay waay waay Cheikh bi ni ngeen ko moo wane lii Ah, nii la ñuy gaare mal gaare mal gaare nii baaxul du maal de bii di suñu oto de di suñu oto buur waxal ci lii di suñu la Paa Dudu la Paa Dudu boobu eh Cheikh eh, waaw gis nga Paa Dudu mal gaare <laughs> waa léegi ñoom fu ñu gaare nii ci côté Baylo wala merci ak bu rafet bi eh, nii la ñuy gaare xam nga i rajo moom mën journal jot na yéen nag journal jot na Cheikh wuy ma waaw Paa Dudu a kare dafa doo yéene booli Touba booli bu tànn. waaye yow Paa Dudu moo la dàqale bopp ndax yow yaa ngi moo laa Morgan yéen a nuroo bopp. yàlla na yàlla musal si moo la mu moo gën a gone boobu kooku baandi la. léegi. bàyyi ma bi léegi xam nañu. waaw Cheikh Sarr gis nga bopp moo laa Morgan. ne ne buy leen bu leen ma dugal ci ay wax léegi xam nañu def.